إله واحد سبحان ربي لا لا بي بدونك من سيدي برحمة باب الحضارة بك بل جرى ما برحم يا دي بحر ما لولا على سيدي برحمة نيلن سيدي برحمة موي برم جمانو باي نس نمسو نيو موي برم جمانو Baay Ñas ñun ko ñu ànd ak mooy borom jamono Baay Ñas Baay ma keroog ba ñu pare dem xaybu ba di sukuraat yal nang fa teew jox ñu yónneen sidi barxama yërmaane yàlla gi ku la am ñas am na sewetasi yal na yàlla def ñu nongo sidi barxama wax leen sidi barxama mooy borom